waaw docteur Camara c'est-à-dire de un daa nekk doomu njaareem bëgg njaareem yàgg dox ci lu jëmale kanam ci ci njaareem yàgg koo xam yàgg koo jege ci ay jéego yu muy def yu baari ci ay wàllum euh, euh, social bi ak gëm-gëmam ak fitam may ko mu posé candidat euh, présidentiel 2024 man nag ma nekk doomu njaareem di sentir loolu li muy yëg ma di ko yëg mu ne il man jéem a toog taxaw ci kanamam wala man nekk ci wetam jéem koo jàppale jusqu'au bout daal. waa si président yi euh, mi ngi dem mi ngi dem mi ngi dem bu baax macha allah ñuy sant yàlla bu baax. yaa ngi parce que début bi bare woon na ñu doon kii xam nga di wax ñii duñu am dara ñii duñ dem fenn mais yàlla dimbali nañu ci kattanam ba ñu bëggoon yàlla defal nañu ko am nañ ma nombre bi. yaa ngi dégg léegi ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey bi ba jusqu'au bout rek xol bu sedd xol bu sedd guy laa jàmm parce que li ñuy xool candidature yi nga xam ne nekk Dakar wala ay Kaolack wala ay Ziguinchor yaa ngi dégg am ku mel ne docteur Camara mu nekk biir Njaareem euh, yàgg dox si Njaareem yàgg fulaal Njaareem fay daal ko loo wax mun a Njaareem loo wax mun a Njaareem kon doomu Njaareem yëpp dañoo war a topp ci ginnaawam jàppale ko soutenir ko euh, ñu atteindre objectif bi quoi. waaw moom yërmande ak ak ngëm-ngëmam mooy jeunesse bi jéem a am ci luñ jàpp waaw di di liggéey di dimbale seen i parents di dimbale seen bopp loolu mooy vision am loolu la gëm te chaque jour ci loolu lay xëy ci lay gont waaw chaque jour daal mi ngi fexe nu jeunes yi amee liñ bëgg euh, di liggéey di yàlla ci loolu daal moom lay wéy chaque jour loolu mooy mooy mooy mooy bëgg-bëggam mooy yéene. waaw jeunesse yëpp dañoo war a ñëw parce que doomu njaaram yi waxuma laa rek waaye fépp foo xam ne nii jeunesse war na fa nekk jeunesse nekk na fa dafa war a ñëw topp ci ginnaaw docteur Aline Camara parce que ñu soutenir ko jàppale ko yaa ngi parce que lim mu gëm moom gëm na ko te te la nit ki il faut nga am vision am il faut nga am mm, passion quoi te moom am na ko am na lu mu am na lu muy bañ te nit ku baax la nit ku nit ku sérieux la nit mag mu la vraiment depuis bi ñu ko jegee ba léegi nii vraiment amuñu lenn lu ñuy ci moom parce que nit ku nit ku nit ku baax ku am yërmande barke yonent yàlla Mohamed di ñaan yàlla ci kàttanam yàlla defal ñu ndam lu sedd guy ci barke yonent bi suñu président jël réew mi